n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen réservé pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause café seeni ndaje

Ya Allah Ya Allah loo ci ñaan mu may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokko shahru Ramadan ya Habib Ramadan moo ëmb leen moo gën ci yow na nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci yàlla lu mën ci lu baax

macha allah papa rafet moo ma jox vingt mille. ma daagu ba marché. jënd sama biiru xar jënd sama potu tamaate mbaxal ba mu neex. lenn laa lay xamal gis nga suba. bébé mi mooy gën a laa koy jox. ma toggal la mbaxal mu ne muut. yéen de yéen a bon mbaxal ci kër gii nii nii. mbaxal waaw. pooj paaj bi jeexal ngeen ko nii. yow nag tey moom da ngaa war a xamante ne dama am ay gan. moo tax tubbalu la. waaye boo amee ay gan doom noonu ngay jëlee biiru xaram bi rek ne ko tëmbal ko sa mbaq gi du rees de mbaxal moom munta rees buuj paaj moom nu ci kër gi de mais ay nit ngeen wala lan bëccëgu weeru koor wi amu leen lu ngeen def eh, lu xew mais yéen yéen yéen yéen lan ngeen jariñ lislaam laa wax ana ñen ñoo war a taxawu lislaam ana ñen ñooy rey ni lislaam ana yéen ndaw la mais yéen kuy bëgg nga gis kuy dem sawara na xool seen dëmb yi nit sawara ko moom sawara saar bi suñu borom doon tëg koo aboo laxab ñu ngi ci yéen yaa moom sawara yow kawaay yow nitu sawara nga yow yow bànqaas yi diine googu ngay wax yow doo cib car dégg sawara moo moo ko ba ñaari ba ñett nga ñem coppet ni na ko ca pëy dégg nga baax a baax man daal maa waaru yow sa diine almuxtaar ji nga xam ne fàtte woon nañ ko démb ngay ni ñu ko mayaat suñu biir bakkan yi ay fàtte nga nu benn wax waxu bakkan lañu noyee waaw mel ni sañ sàmba li ma lay wax toujours rek damay diglu ci say waxtaan bu bari waaye dangay waxe xol te mbindeef yi seen tolluwaay ak seen gëm àgg na foo xam ni faw di waxtaan ak ñoom ci yërmande yàlla suñu borom ji te yàlla bari yërmande lool te suñu borom yërmandeem yaatu lool moom sax day wax ni doomu aadama yi li ñu bari bari seen bàkkaar yi buñ ko bàkkaaroon ba mu jalu bay laal asamaan waruñoo naagu ci ci ni ñoom yàlla man yàlla duma leen jéggal ndax man aji yërmande laa te damay jéggal samay jullit kon yàlla yërmandeem yaatu na yaatu goo xam ne bul bàkkaaru mukk ba jàpp ni njëggalu yàlla jomb na la kon yàlla day jéggal jaam bu ko sopp ci ak nu bàkkaar ba tol tol lu dul bokkaale loolu moom maa ngi ci gën a wax bu baax beneen bi mooy ci wàllu xam-xam ngay boroom xam-xam nit ñëpp di la diglu kon war ngay bàyyi sa xel ci mbirum balxam ak bisis muy mbir moo xam ne doy na sëkk misaal ñu ci xool ñun ñi nga xam dañuy wax nit ñi di ñu diglu loolu na ngeen ma baal maa ngi jéglu bu baax ci kàddu yi ma yëkkati ak yéen man moom ma sawar attewuma sax jaam ñi suñu borom moo moom loolu man nit rek la te yàlla nee dina jëpp dina jéggale bépp bàkkaar ba mu des bokkaale maa ngi jéglu na ci li ma doon wax dellu leen rek ngeen rafetal ci tub suñu borom di mën naa jégal bépp bàkkaar maa ngi jéglu bu baax jéggal nañ la jéggal bu baax man hmm. damaa jaaxle sax man nag bi ñu tuddee almuxtaar rek nag laa tiit de mais li mu doon wax dara yëngaluma si woon dara bëjëguma almuxtaar mi nga xamante ni nitu diine la nitu lislaam la est-ce que dama eh, sama cër yëpp dam ndax almuxtaar nitu diine la alhamdulilah ah. alhamdulilah moche comme mënuñoo tubaat suñu bàkkaar est-ce mooy damaa waar. waaye yéen noonu almuxtaar ma jaaxal. moo jaaxal ñëpp. kon yéen cawara si mu fi tudd nii moo leen tiitloo. kon kan man de àgguma fii ci wax.